xamante ni yéenay suivre euh, euh, chaîne NTV ak seen site Le Monde à Dakar ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ci euh, entretien exclusif ñu am dalal ci Moussa Anne moom nag mu mu ngi bokk ci coalition ak bu euh, Amadou baax euh, ginnaaw gi nga xamante ni euh, dem nañ ci élection présidentielle yi mu jël deuxième tey Amadou Ba ñëw na bokk ci ñi nga xam ne dañuy dem ci élection législative Moussa ñu ngi lay nuyu. Oh, soxna Aram ñu la la ndokkeel di taataane di la déglu rek mhm. mu mel ni da nga choisir jàppale ki nga xamante ni moo di Amadou baax Euh, lan moo waral nga porté sa choix ci Amadou Ba. waaw question bi boobu dina ma neex loolu xam nga nit moom da ngay am kilifa boo gisee ñu porté suñu choix ci Amadou Ba suñu kilifa ci politique di suñu mantool di suñu leader docteur Cheikh Oumarane ci moom la àndal te ñun Cheikh Oumarane moom fu ñu joxoon rek foofu la ñuy jëm. d' accord euh, Cheikh Omar Anne moo ànd ak Amadou Ba moo tax nga topp ci ginnaawam. Mhm. d' accord mais tey ñu gis ni Macky Sall dina ñëw ndax. amul ben calcul bu ngeen nek di def manam ngeen nek entre le marteau et l'enclume waaw xam nga man Macky Sall ñëw man luma neex la parce que na mën lool nit mom do ko bëgg ba paré nga naan bañ ko mu ngi so sama xol lool mais dama japp ñew Macky Sall pour man sama gis-gis la de ñew pour yakal Amadou Ba mm. man lool moy sama point de vue lool moy sama gis-gis parce que gis nañ lu xew ci élection yi passé munoo tab nit ba des ay deux semaines ci élection ngay def ni

d'accord yow da nga japp ni euh, Macky Sall bu da fay yakal ki nga xamanteni modi Amadou Ba. non mënul yakal Amadou Ba mënu ko yàqal mënu ko yakal mais loolu la si jublu mais loolu la ci jublu. waaw man dama japp loolu si jublu. waaw mais xamna naa yakal Amadou Ba ñu bëri na dañu japp Macky Sall bu duggé day xajamal bi mais comprendre nañ. Hmm. ah yow lutax nga wax lool mais Macky Sall nak kenn du ko table ak Amadou Ba quand même. Macky ponkal la Macky ponk Macky mo jëf. ba gars yi weddi ko moo jël lu Sénégal di ko xeebe te dëkk bi bu tommee métti ba ay xaj di lekk ay ngooñ nga xam nag moo ko waroon lekk moo ñu ko yóbbee. ah bon nu mu leen ko yóbbee moom toogul ci réew mi. moo jël ay cuuna dëkk la réew mi. nu mu leen dénkee réew mi da leen réew mi. nu mu leen taylawee réew mi tayle réew mi mooy mamaram dafa indi loi bi bu ko ensemble nee na par force samay député dañuy wote fii la fii la ko waxee jam ñaay force dañu koy wote vote boobu moo tax Sonko génn président Bassirou Diomaye fay génn ñu dem élection mais loolu pour apaiser woon climat politique bi la woon. pour apaiser boppam. ah bon oui. nu mu doon apaiser boppam. ah moo xam lu ñu waxante mais pour apaiser boppam la. c'est-à-dire. c'est-à-dire boppam la doon protéger. ah da jàpp ne tey. xëy na daa lu mu def mu bugg xam bu génnee dara toog toog mais nax na boppam te ñu ngi koy sabote barki démb la mujj benn daan fekkoo ko ci avion amul lu mu ko waxul. leer na ma ci yàlla bu démb bu doonoon tey du def lii man lu ma leer la. bu démb ba doonoon tey du def nii du indi loi d'amnistie. wallaahi azim du ko indi parce que dafa parce que ñu mu ko ñu mu ko sëkkal du ñu ay gor. Macky Sall lu mu def yëpp sacrifier APR sacrifier Sénégal jox leen nguur si jàmm Macky bu mu génne palais bi joomay gunge mu rafet Sénégal yëpp kontaan waroon na compter ñu nekk si jàmm ñu gouverne seen cinq ans bu dee dañu nekkaat ka ñu nekk yàlla ku jox réew mi ñu xam ne noonu la. Sénégal jàmm la daw Sénégal jàmm la taw. est-ce que Macky tamit jàppul ni peut-être euh, defoon amnistie bàyyi leen ñoom ñu ñëw gérer réew mi foofu la jàmm bi gënoon euh, fi la ñuy amee jàmm moo tax mu def. loolu ñu bëri loolu la ñu yàqu jàppoon te bu mu defee ñu bëri rafetlu ko mais dafa ne xam booy def mbir doo xibre da ngay laajte man bu mu ko defee kontaan naa ci loolu mais ñu mu defal ñoo ko jarul maamaram gis nañu réew mi. bu demee ba ay xaj di lekk ngooñ nga xam ne ay nag ñoo ko waroon bi métti la man contre ñu fi man contre ma leen wallahi azim man du ma contre doomu aadama man du ma contre amuma si yooyu man des bu dem par seen raas bëgguma sa tudd tur parce que ku ne mu ngi di béy man dama afer affaire bi tool la ku ne ngay béy sa waar d'accord ku nekk day bay sawaar ñu jëm ci élection législative yi nga ni Macky Sall mbébatam mooy yàqal Amadou Ba nga ni mënu ko mais ñu gis Amadou Ba jamono ci ci biir coalition bi dañu gis sax ñoo xam ne investir na leen ba pare ñu annoncer retour Macky Sall ñoom ñu génnal seen bopp. waaw xam nga loolu man gis naa le cas ancien DG AIBD. Mhm. Ablaye ji xam nga nit lu may wax rek gore moo yombul Amadou Ba bu mu koy contribué wax wax na ko xamoon na moom yëgoon na avant li avant li Macky Sall day ñëw xëy na kay dafa bëggoon saboter liste Amadou Ba mais yàlla noppi na mais mënuñu la def tête de liste département Thiès. nga xëy nga naan bàyyi nga parce que Macky Sall lii ay politique amul ngor. ah ah luy politique amul ngor. man maa la ko wax tey politique amul ngor ku ne intérêt lay def ma commencé président Macky Sall amul lu ko Ablaye Wade defulul mm-hmm. mais bu mu gisee intérêt dafa bàyyi fi Ablaye dem yoonam jël doomu Ablaye tëj ko kasu génnee ko réew mi intérêt la topp ba mu jiitu tey ñu ngi nii ñooy ànd lii mooy politique. Mm-hmm. politik kuy moytu wala kuy xol amna na do ko def mhm. lool moy politique amour Ba man damay wax ndissan koku yalla ko yaral bopam amu lu degul nenañ amour Ba sacc la kéro fi le premier mais nit nit ku ne lu ko ni ko ni ko suñu borom bindé mhm. xeyna mom nit ni lako yalla bindé mën nga fi bu suba ngontu tontu Mhm. ndaxte Ousmane Sonko ngay faire allusion ci sortie bi nga xamante ne defoon na ko. avant Ousmane Sonko Mimi Touré wax na ko fi. Mhm. nee na da nga créer parti niveau responsabilité responsabilité lu la dañ dañ woon anamu. Mhm. ama tontu wu ci PM wax ci tontu wu ci. présidentiel PM nee na ko dafa sàcc mën na ko jëlal li yëpp tontu ci. ndax nekkul ni comme ni ko tubaab di waxee kii na di moo consent est-ce que nekkul ni yooyu ñu koy waxal tamit mënu cee setal boppam moo tax mu noppi. dina def lu kenn ñamawul def tay mën naa waat ci barke yàlla ñu wax dafa amul tey ko indi kaamil ma waat ko bu ma xamee Amadou Ba yàggul de benn yoon suñu loxo lañ laale jëmm Cheikh Mara moo tax mais ku ma indil kaamil ma laaj luñ koy wax ni dara amu ci wallahi azim sama bammel sama sama bammel sa wóoru mais ku indi man ma waatal ko loolu. d'accord da ngay fekk si kon li nga xamante ni moom la Waly Ndong wax ci Africa 7 Waly Ndong mi ngi xamle ni Amadou Ba kii di. Euh, Karim Wade da ko tuumaloon mais Karim dem na ba xam ni sax lim doon def jaru ko demoon na ba bëgg a coaliser ak Amadou mais mu xalaat ni fi mu jaar ak lim ko sosal yëpp mënatul woon nekk ba mu xam xamle ni sax Lamine Thiam bu PDS bokkoon na ci ñi doon jàppale Amadou Ba ci élection euh, présidentielle yi wees yi paase ñëpp xam nañ ñu doon jàppale Amadou yëpp dara amu ci ñëpp xamoon nañ ko dara amu ci ñëpp xamoon nañ ko Karim moo ko gën a xam Karim balaa mu dal ci ñoom PDS ci Amadou Ba la tànn la laal dafa duñ ko ubbulul bunt jéemoon na ko pour ànd ak Amadou Ba ci élection yi ANCAR Amadou Ba ñoo ko ubbulul buntu mënoo ñu tam dëmb dëmb tey tey nga bëgg ànd ak moo tax mu wulal demal ci ñoom Macky. ah d'accord kon Karim. Euh, dafa fee la njëkk fëgg. njëkk na fëgg ci porte Amadou Ba. waaw gars nanguñ ko mu ne ko mënoo ñu wax dëmb ay dëmb lañ tey nga naan dañuy set. Mm-hmm. d'accord léegi Amadou Ba ni mu bëggee def politique nii tey yaa fi ngor. Euh, bu fekkee ni tey nii la nar a continuer ndax am na avenir ci politique bi. man de bokkuma si staffam mais bu ma dégaloon game politique bi si la war a dugg banditisme politique bi ku la wax góo nga ne ko fukk ku la wax ñaa nga ne ko ñett mais li mu politiqué moom la àndal de wax dëgg mais li mu politiqué nii nii nii nii bu bëggee am politique Sénégal bi mhm. bu dee nii lay politique mën na dem tooy. mën na dem tooy waaw. d'accord ci euh, li nga xamante ni moo di Ousmane Sonko.

Kër Massar fii la taxaw nee na projet yi pare na. Mhm. le 2 boo la ñu falee deux mois régler mhm. réglé. Mhm. barki dem seen ministre mo def conférence de presse am projet bi le 7 lay guen génn le 9 neuf. ñom rek ñoy wax ñoy ton sen bopp man da bu féké da nga may wax tay amul nga wax tey amul man duma la déggu say wax. man non la mel xeyna amna fu mu ko teg mais wax dëgg yalla man ben yon nga may nax. da jàpp ni Macky da leen nar a nax nii day li muy def nii semblant la comme ni ko ni ñu koy waxee. loola fi ne fi ne. d' accord léegi jàpp nga ni Macky Sall bu ñëwee dina am dara ci euh, législative yi. législative yi jàmm ak njëriñ ak passif ñoo koy séddoo. ah bon la wax lii. loolu nga gis loolay am. ñoom ñaar rek fi nekk. maa lay wax nii. ana sàmm sa kàddu. sàmm say kàddu loolu luy loolu. Hmm? luy loolu. ah xam nga lan mooy sàmm sa kàddu. sàmm sa kàddu mooy lan ñan ñoo fa ne. ñan ñoo fa nekk xam nga leen ñan ñoo fa nekk xam nga leen xamuma leen ankay ah, yaa Bougane Gueye Dany yaa Barthélémy Dias yaa euh, na Bocoum yaa Cheikh Tidiane Youm du Pur Anta Babacar Ngom Pape Djibril Fall xam nga man ñi ma wax ñu xamuma leen quoi franchement Bougane rek laa ci xam hmm. waaw xamoo Barthélémy Dias Barth xam naa ko te ku ma ku ma ku ma naw la ku ma bëgg la hmm. Barth man bu doon sama sago si ñun lay ñëw parce que dafa yaru mën lu muy def du dépassé kenn du tontu ku mu tooñul ñu falo bi tey bu ñu faloo yàlla ak bart la amul lu mu dajul ndax passif hmm. mais lii mooy molti lii lañu koy fayee tey hmm, d' léegi boo yow boo sañoon te day ñëw ci jàmm ak njëriñ wallaahi bàyyi sàmm sa kàddu bu ma sañoon mais le coup est déjà parti bu ma sañoon lii lay am hmm. waaw d' accord léegi euh, ñu euh, ñu ñu ñu jeexalee ci li nga xamante ni moom moo di euh, Amadou Ba bi nga xamante ni nee nga Ousmane Sonko da ko attaqué mu metti la lool mais attaque yooyu Amadou Ba tontuwu ci loolu tamit metti na la ndax boo ñoon mu am banditisme politique. loolu nga wax léegi tekk-tekkaaralam ak dal bi nga xamante ni euh, Amadou Ba am na ko est-ce que loolu du def défaut ci élection législative yi ñu jëm. non xam nga staff la am. Mhm. xëy na moom yàlla bindeewul mais am na ñeneen ñu fa ne ku mel ni le king mu ngi foofu.

ndax mën na apporter benn poids bi Amadou Ba. waaw xam nga dakaar moom Dakar moom du yomb moo tax gars yi ñu ko bu jéem a galgal sama ndaanaan ji muy Bart. Hmm. mais nañu xamal ne bu ñu ko galgal rek Sonko dañ koy galgal. Hmm. tiit moo tax ñu bëgg ko fexeel. gis naa waa boor bee télé boobu Walf. Hmm. bind ba pare bindaal encore di jéggaluwaat lu ñuy daw bay daan lan la lu ñu yàkkam lan la Bart leen def. booy génnee information du toll ni wal fajiri ngay wax lu amul di sotal di di sosal nga xam ne lu lànk réew mi nga ne ñoo ko bintee amul. man nañ jàpp ne seen yéene la ñu wax. waaw seen yéene loolu ñu ko mos a am parce que Barça fayul luy nit yi man Barça ànduma ak moom mosuma ko gis face à face télé laa koy gis mais ku ma bëgg la te boo ko xam ku respecté nit la kon lii jarul lii. Hmm. Barça fu ñu ko suuxlee Sonko day du dem élection wala élection du am hmm. bu demul Sonko demal ndax ñoom ñaar parce que mënuñu topp dossier bi nga xam depuis 2012 ba légui ñu bëggoon Ousmane Sow moko ko waxoon yàggatul nee na Barthélémy Dias day dem élection par force. Hmm. kenn mënu ko téré gagner mairie Dakar mu ñu top dossier 12 ans ba légui moko ko waxoon waxam baangi fi fii. Hmm, hmm. à chaque fois waxam lañu indi mu tontu ko. moko ko waxoon défendre Barth amul office fi justice bi da ngeen bëgg galgal Barth da ngeen bëgg wax tay nak kàddam demo ngir yalla bi pa mu nekk première fois mu respecté kàddam. bu ñu fexe na défendre Barth. Barta defar nako fune wax nañu barta mu rew mi jamono ji ñoy rew mi na bay barta dem neena ño fal barta mer mm-hmm. lool lañu wax mm-hmm. ño tax barta neena nañ ko bàyyi def la ko ñoo fal mer mm-hmm. dañu xam ba Ndakaaru ji bande bi moko mom de ma <laughs> du jass ma la wax ni moko mom de nañu bay mu dem xam neena fal wax Abbas fal nak feeri beuri wax neena mom fu chaque jour lu genn ñu tuumal ko xaalis buñu genn ñaan bokk na ci dil bi xamuñu sank laa ko gis mhm, yu ya. publié ko. moy moy moy polémique. waaw amna wala amul wóoruma mais Abbas nee na ñoom Dakar wa passé fi neen ñota bassa Barta falu nek maire Dakar ah nga la way ma maram pour mu leer mu ngi ni ñu bàyyi jalla na gagne Dakar té Dakar mom mom ci bopam sax. bu sama sago ci département Dakar mais bu sama sago ñu gagne Dakar mais Barta bu demee. moy mhm. gagne Dakar man na fumay assurer le amour Ba man. Mhm. département pour ñoo koy gagné. foofu laa bëggoon ñëw euh, ak jamono ji affaire yi tendance ni mo renverser wu Macky Sall ñëw na ay Podor Matam zone foota bobu non japp ngeen ni euh, li ngeen fa bëgg di ngeen ko fa am. waaw man Matam mom maîtriser ma man sama département la maîtriser. Mhm. muy département Podor. Mhm. Njéeri ba japp fi fuma wax yo ni trois pôles mo fa ne. jàmm ak njëriñ. ñoom. Macky mm-hmm. Pastef mm-hmm. mais balaa nga wax naam nga nekk fa d'accord yow jàpp nga ne yéen foofu yéen seen seen kii la seen titre foncier la Seydou Mara lu mu fa def mm-hmm. man de am naa yaakaar jeunesse bi léegi moo jot ñu delloo ko njukkal ñu fay ko borom parce que lii combat la diggante Ablaye daawu jël ak Cheikh kan moom moom bi parce ñoo doon ànd à chaque fois Cheikh Oumar nekk nekk na fi tête de liste 2017 législatif. Mhm. ñu am 98 pour cent. Ablaye nekkoog foofu nekkoog fii législative yi passé. Mhm. ñu am 58 pour cent. Mhm. ba léegi gars yi nanguwuñ Cheikh moomam moomam département bi. mais yàlla def na ren ñoom ñaar ñëpp. ku ne dama la boppam. maa gis nag booy aade day commencé bind ñu ne ay Cheikh Ka Cheikh dëkkul Podor Cheikh la juddoo ma ne la dëkk si dëkk bi defar dëkk bi moo gën. Mm-hmm. Seeku Maara bu juddoo Thiès moo ñëw Fuuta changé ko benn ci man mel ni Moussa Anne mm-hmm. jox ñu liggéey sécurité ñu dafa ñu lu mm-hmm. demal Podor financement yi moom la enseignement yi moom la formation yi moom la booba des fonds fu mu nekkoon moom nga xam ne Fuuta la juddoo amee entrance sama commune premier diplôme sama commune la amee école Omar Bele ñu beaucoup ben arrondissement moom di juddoo si dëkk bi màggee si dëkk bi yaroo si dëkk bi mm-hmm. nañu wax lan la def si dëkk bi. d'accord sa loolu du jàll. sa beneen leader bi moom jàpp nga ni dina dina ñëw bu baax a baax. muy euh, Moussa Moussa Anne Moussa Ahmad Sarr. Moussa Ahmad Sarr. le jeune DG. Mm-hmm. waaw moom day man moom moom la Cheikh tànn. Mm-hmm. pour mu nekk tête de liste de parlement mu ngi national. Moussa mooy tête de dane ko. ADD man ak yow combat. sama poulain laa lay jox muy Moussa Hamad Sarr mu régler département bi te incha allah dinaa ñëwaat fii ma ne maanaam du poulain Cheikh dóor na ADD si département bi d'accord parce que dañ koo liggéey def ko gis nga lii politique buñ la dénkee dara xoolal say dëkkandoo xoolal sa waa gox pour ëllëg boo leen soxlee lii rek mooy fayu politique mais man mënu ma nekk chaque jour plateau fu ma nekk yalawaan maam aram ngir yàlla recevoir ma ngir yàlla invité ma. Mhm. bu jotee nga fàtte ma nga indi keneen. Mhm. bu jotee rek man ci ñu bàyyi la. Mhm. man ngor rek. ngor moo ma bàyyi ak Cheikh Oumar mm, ngor jafe na ngor wallaahi azim moom bàyyi ak Moussa Ahmed Sarr. billaahi amul ku ma woowul si département bi. lu tax investiruñ la lu tax. waaw gisuñu la waaw xam nga du xam bu ma ko bëggoon dama koy am parce que 2017. Mm-hmm. bu ma invité bu dama dem si am sa soo sidi bi kaar leneen. Mm-hmm. mu investir ma si lisam. meeting clôture la ma Cheikh mu ne du fi amee si laa rallier ñëwaat. Mm-hmm. kon man bu ma bëggoon rek ñu investir ma. dama koy bokk dem mais dama concentré wu si sama liggéey. xale laa jarul may yàkkamti. exact man loolu laa gëm. te am naa vision man balaa may laaj ay député ay laaj leneen demee laaj sama gox ba pare. Mhm. man tant que tey ma mairie perte sama loxo. Mhm. dama yaakaar waruma laaj leneen sama base maire bu fa ne moom moo moom laa bëgg a jël mairie bi soog a songo leneen. fan la ban commune la. commune de Pété dans l'arrondissement de Sall. Hmm, d'accord. foofu nga bëgg a téye. incha allah ah le temps nu nu nu la dira affaire yi de ambition kase la am gëm-gëm ba pare xam fi nga xamante ni moom mooy métti ci euh, population bi nga jëm di ko nga proposer leen ay solution xëy na ci biir campagne dinañ leen dalalaat ñu yaatal bu baax a baax euh, ci liggéey bi fan la toll euh, amoon naa mbégte ñu defoon entretien exclusif bi ñu waxtaanee. Euh, ci Amadou Ba ak ci say leader waa ani badge bi nga daan takk njël yi waa njël bi réerul dañ koy waa dañ koy defaraat hmm. xam nga ba présidentiel la woon mhm. dañuy benn dañu am logo ba benn logo marron la woon mhm. bii logo l'islam la vert blanc mhm. moo tax njël bi dañ koy defaraat ñu koy ah, defaraat ah pour man da ngaa ci njël bi non yàlla tere hmm. seex lu ma yenu ma yenu seex du ma mës a ak moom d'accord lu ko waxoon laa koy waxaat këram boo desee benn militant bu gore Podor départ xamal la man ah, la loyal nga def duma duma la musa bay mhm. duma la musa weddi mhm. même bo waxe musa an gënal sama kër dama la ko gënuma mhm. parce que dugul na dugul na sama xol ba pare mënuma ci dara d'accord man noonu la ma yàlla bindee boo ma permettre rek l'autre ding ding nga ko def ci ci njël bi di nga di nga tak njël njël bi bu waji bu mako livrer suba naa la ko photo envoyer la ko d'accord inshallah bo mo permettre permettre mo wax ci pulaar touti ah ayca mbaɗa ma ɗoox erreur rek déyguma pulaarde non non ayca ñawol mbaɗa salmine denndaangal département podor fof njeeriba haa jaab e vingt deux commune ɗi fof sikki alaa ko musidɗo moon mo wonaa musidɓo moon moussa an baye fal cheikh oumar an mhm, mhm. pro moussa hammadi sar paaɗen ke élection ŋaaji débité ji mhm. maɓe ngare moon ɓen ko makisal sohli makisal sohlaaji département podor ko cheikh oumar an e ablay dawoud diallo poondirta haaju makisal alaa heen so n ƴeewi kamɓe bilte maɓe woni hen ko wutando makko e hoore puccu ɓayde min ndendike ablaye wadda ballaten noon ko docteur cheikhou manan en ha noon natal meɗen ko dandamal waɗi ko fewertiɗi ene waɗi hoore photo amadou ba mais noon gande wona makisal kaɓaten en kaɓaɗe makisal kaɓaten ke laamu wongu ɗo ngu en keyɗi fuutankoɓe tampi ɗum tagi mboɗo ñaago noon bandiraɓe fuuta foof jeeriɓe ha jaama finde commune ɗi fo so yonti inchallah le 17 yimɓe gotata docteur cheikhou maran yimɓe gotata amadou ba yimɓe gotana moussa sar yimɓe gotana honorable lalla yimɓe gotana honorable nafi kane podor yaara yeeso ñi ma lim nii moom la ñu investir mhm. maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen ziar yow tamit di ah léegi yow nga ne leen ñoom nañu choisir list Amadou Ba mhm. ndax moom moo fa investir ay doomu Fuuta mhm. ña yàgg a xeexal Fuuta ña fa def ay réalisation merci bu ñu xool sax bu Macky Sall loolu nga dama ne bu ñu xool liste Macky Sall parce que <laughs> dañ lañ naxee ñu ne Macky Sall moo soxla parce que liste Macky Sall bi bu ñu xoolee mbokk moo ci nekk ak mhm. bopp fas maa dégg tukulóor kon du mhm. a yi xam nañu tukulóor yi mhm. Macky dafa sax seen xol moo tax te te ñu jaaree foofu maa nag bii Macky xëccoowul Cheikh maanaam Ablaye ñoo xëccoo Podor yoonu Macky nekku ci bu leen duggalal seen bopp <laughs> xaaju Macky alaaxeen Macky fondra ko Cheikh Ablaye Podor d' accord <laughs> d' accord dégg naa bu baax a baax li nga xamante ni moom nga wax ay ca euh, dinañ la dalalaat incha allah ci fan yu néew di la jaajëfal ci wuy bi nga wuy suñu invitation incha allah yow moom il faut ma gis ministre ah, yow xam naa campagne moom fóor il faut ñu yóbbaale la parce que ku ku disponible nga li ngay def ni yombul vraiment man moom dama lay sant di la gërëm te yàlla xam ne lii sama tàng laa ci teg mhm. dinaa gis le king Mhm. wala incha allah bu ñu dem campagne dañuy ànd ak yow bu soobee yàlla loolu war a nekk la parce que li ngeen def nii dañuy ubbil buntu mhm. même bu nekkul seeg mun nañ parce que boo demee ba vise politique mhm. nga toog rek nga naan politicien posé kenn du la gis fenn kenn kenn du la xam kon lii yombul maa ngi lay sant di la gërëm di sant ñëpp jërëjëf Aïcha cher internet lii mu nekkoon suñu entretien du jour ñu dalaloon ci ki nga xamante ni moo de Moussa Anne mu duppee boppam Baye Fallou Cheikh Omar Anne wane na ko ci li di biir bi jërë ngeen jëf ci teewlu bi ba beneen yoon